promotion orange di jaay crédit non non non man pour man boy yooyu bon ah, bon orange orange baal leen ma <laughs> ak Expresso Cheikh Yérim sek ñom man dama len jawale sax comme xalé yi jaay promotion ci mbedd bi ni wa Expresso ak wa orange hmm. sen sen cap yi nii sen sen seen t-shirt yi même chose que boy yi jaay xalé yi jaay promotion yi promotion ci mbedd bi alors. c'est très joli. alors man ma ma gisu lolu ma gisu loolu. olke yow amet ndoy bala ngay sol jaay kat promotion wala kat crédit ci mbedd wala ay carte crédit mm. olke ngay def lolu ci ben point de presse mais da nga wara dem régler sa situation nga waxtane ko ak police wala gendarmerie yo cheikh yermi sek nax la ñëw jox la chemise chemise bu jaar 300 francs t-shirt t-shirt t-shirt mu jox la t-shirt bu jaar 300 francs ak ben mbahane bu jaar 150 comme xale yi promotion nga ñëw taxaw ci point de presse di naan on a décidé de porter plainte contre la police parce que Ahmed Ndoye matal na ay kayitam yaangi ni Cheikh Yérim Seck jël kayit deke tour du tour Ahmed Ndoye sa mo nek ci kayit di manipuler le peuple di manipuler l'autorité publique di défier aussi l'autorité publique parce que la gendarmerie la police c'est l'autorité publique la police et la gendarmerie c'est l'État c'est le démembrement de l'État yeen ngeen jël seen point de presse di manipuler les sénégalais ngeen jël seen point de presse hein di di djema di djema def la manipulation ñom ñep ñu ngeen di jël ñi ñom ñoy yam parce que ñom ñoo nekkon ci manipulation bi. maintenant eh, eh, il faut eh. sauver le soldat Ahmed Ndoy bu féké yeen seen point de presse yi ngeen doon organiser demb bu féké ci deug ngeen nek Ahmed Ndoy police bi ko du ko arrêté ba def ko ba garde à vie ñu nar ko defeere tay ana njëriñ sen point de presse bi ngeen doon woote démb ana ñoom seen point de presse bu don wote supposant que dañuy Léral ni que dañoo togn Ameth ndoy ana njëriñ bi ana njëriñ bi alors ma ñëw ci lu topé toppee Ameth Ndoye mm. est-ce que xam nga ni que bu ñu yemoon sax ci infraction bu ndaw boobu bu ñu ci infraction bu ndaw boobu comme quoi que Ameth ndoy amul permis même si infraction là, mais police mën na coopérer ñu ne ko non demal jëli demal jëli sa permis nga ñëw mais dafa am benn addition bu ñoo écorché au ci dossier am faux et usage de faux voilà oh ya ya ya ya lolu lolu lolu parjure la lolu un faux serment lolu parjure la loolu parjure la usage de faux un faux serment un dossier administratif

ñu jàppale woon euh, bon tuuti ah parfois aussi da ngay def tuuti kii alors ñu jàppale woon Ameth ci faux et usage de faux ñoom Cheikh Yérim set ñoom ak ñeneen ñoo xamante bëgguma citer seen tour dañoo koy tey ndëkki ba suur ñu jox leen boisson ñu naan ñu jox leen lu neex ñu naan ñu tëdd fu nooy Ameth ndoy ñu garde à vue ko ko ba bóor sëkk boo ko laajee sa ba léegi sa ndëkkiwul à moins que benn policier am clémence indi ko kafe tuubaa ci benn taas bu cinquante franc ni ko am sëñ bi am nga téye sa biir en attendant hmm. ñoom ñu ko jàppale jàppaleen ci faux et usage de faux boobu anañu ñuy annoncé ni que dañuy déposé une plainte contre la police mbaa seen plainte dinañ ko déposé dama ne mbaa seen plainte dinañ ko déposer tey mbaa dinañ déposer seen plainte nañu bàyyi caaxan alors mii noonu exactement Cheikh Yérim Seck bu nekkee ci ay caaxanam di def politique di reconvertir am politique comme Madiambal Diagne ñoom ñuy daw di ko jàppale ci loolu. Cheikh Yérim Seck mu ngi. defar image am parlant de Cheikh ñuy daal di ñëw sans plus di créer ay affaire am yéen au ngeen dem créer tal seen problème ngeen ne da ngeen di fekk Cheikh Yérim Seck qui est un manipulateur ngeen da ngeen koy fekk ci loolu. alors parlant de Cheikh Yérim Seck exactement par rapport ak li na xam ne moo di wàll wi Cheikh Yérim moom moom euh, leneen itam di koy de la régie El Hadj démb. Euh, gis nañ ko mu daal di lancer son mouvement fekk si ñoom Mambay ñoom euh, Madiaba Diagne et compagnie mais tout d'abord Arfan ñu bëri jàpp nañ Cheikh Yérim Seck peut-être devrait être euh, interpellé si cadre yi nga xam tam yëkkil na ko daal koy jëmale exactement suñu ay force de l'ordre exactement Arfan loolu ban tontu nga si indi mu ne ay preuve am sa la nga xam ni itam nañ koy accuser xam nga yàgg naa la fi ne ñu doon mbumboo mbuboo tour journaliste yi code de la presse mu couvrir lan voilà, journaliste yi say a ñu leen jappé ñu couvrir ñu libérer le journaliste Cheikh Yérim libérer le journaliste Madjambal Diagne il faut que maintenant la presse sénégalaise ñu xam ni que Cheikh Yérim a décidé de se lancer dans la politique comme Madjambal Diagne nous mu décidé de se lancer dans la politique comme Mahmoud Ibra nous nous mu décidé comme ñom Bogan, comme ñom Pape Djibril Fall qui étaient tous des journalistes, comme nous avons décidé que nous avons lancé dans la carrière de politicien. Cheikh Yermisek vient de se lancer ah. dans la carrière de politicien. Même si Yago Nakawak, Anka Goulé, c'était un politicien bien avant. Il a donné Boubo, presse, di journalistes ni que journaliste la léegi feeñ na mu ngi a feeñ na moom na il boppam nee na day politique dama ne day Il de la ko soog a wax mu ngi koy soog a wax donc ñoom Madiambal Diagne ñu ngi soog a wane ni que ay politiciens encagoulés lañu. léegi la ñu bindoo donc Cheikh Yérim lépp lu mu wax. dañuy jàpp ni benn dama ne lépp lu ñu wax nañ ko topp ci kanam yoon nañ ko topp dañ koy topp ci kanam yoon ak yoonal amul amul ay source amul dara moo tax ma ne na bi taxaw taxaw taxaw seetlu. mais enfin li mouvement la moom ba tey waxul ni dafa am ay parti mais mouvement euh, ba ni day politique mais euh, mouvement c'est deux cent vingt. saa waay mouvement politique la sëñ bi. mouvement politique là. Cheikh Yérim il fait de la politique comme Madame Diagne il a manipulé ces jeunes là ñom Ameth Ndoye pour ñu ñew pour ñu ñew fekk ko ci sa dit, non je vais porter plainte on va porter on a décidé de porter plainte contre la police parce que dañoo togn Ameth Ndoye police bi nga porter plainte jàppul a Ndoye de gendarmerie moo jàpp Ameth Ndoye gendarmerie la brigade de bi ko être gendarmerie la maa déglu <laughs> moo dama ne la caaxaan la ñu nekkee woon caaxan dañ doon caaxaan rek dañuy xëy di caaxaan di caaxan ñu mel ni Cheikh Yérim Seck ñoom ñoo doon caaxaan fii caaxaan fii di manipuler sénégalais yi fii à longueur de journée ci ay caaxaan la ñu nekkoon ci caaxaan la ñu nekk booba léegi di naan non carrière journaliste bu jaar Jeune Afrique bu jaar xaw ma fan. yow journaliste bu jaar Jeune Afrique té amoo kaddu bu crédible dans ce pays war nga xolat sa bopp yow di nga jaar Jeune Afrique jaar feneen ak feneen ces presse de manipulation là de propagation Jeune Afrique c'est une presse c'est un média de propagande man may deug ay nit dina non information bi Jeune Afrique Afrique moko publier ko xamul Jeune Afrique moy wax lolu Jeune Afrique c'est un média de propagande ay melni yu chef d'état ay chef d'état dañ koy fay pour ñu def leen propagation ay propag média de propagande la ñu ne non Cheikh Yérim sek jaar na gën Jeune Afrique non Cheikh Yérim sek def na lii ko xamul Cheikh Yérim sek moy wax lolu il fait sa manipulation à longueur de journée dégg naa ko démb muy wax ni euh bu fekke dañ ma wo ci ben jeu bu illégal man bu suma waxé aduna tukki <laughs> ci. na terrain bi seen. moom. na terrain bi Cheikh Yérim Seck. nee na Cheikh moom Cheikh mii. moom nee na moom nee na suñ ko wooyee dans un jeu. boo xamante réglementé wuñu ko bu illégal moom su waxee àdduna tukki. nee na nee yow yaa ngi wax booba léegi yaa ngi wax buñ la xamee booba léegi yaa ngi wax Cheikh Yérim mu soo fi wax lu nit ne Cheikh Yérim Seck waxoon na lii pourtant te mu doon dëgg. nañ moo nañ ma wax benn fee boo xamante ne Cheikh Yérim Seck bu mu dalee wax booba léegi wax na lii ñu dem ba ñuy gisal ko suñu bopp bu ñu ne pourtant Cheikh Yérim Seck waxoon na lii mu doon dëgg amul. waxoon na fii sondage yi ñu ne sondage élection yi dernière élection présidentielle yi Cheikh Yérim Seck lan la fi waxoon ci sondage yi mu ne sondage yi ma am man Cheikh Yérim Seck kenn du ko contesté kenn du contesté sama sondage yi ma yor. te ñoom Sonko xam nañ ko ñoom Diop ñoom Macky Sall xam nañ ko selon les sondages moom Cheikh Yérim Seck moo wax selon les sondages le PASTEF de Bassir Diomaye Faye est arrivé euh, derrière moi très loin de Amadou Ba. C'est clair largement très loin, très loin de Amadouba, très loin, derrière Amadouba, très loin, derrière Amadouba, selon les sondages de C.I.R.I.B.S.E.C. élection qui présidentielle. Mais avant, Lui dit ce gagner les élections. Oui, d'accord. Oui, mais. yow jooyoo mais jooy nga ci plateau. lu lu ñàkk fay da non non non non xama xama ñooñu sénégalais ñoo leen di may buzz ñu mel ni Ameth Ndoye sénégalais ñoo leen di may buzz dans un pays sérieux ñu mel ni Ameth Ndoye ñoom Cheikh Yérim Seck waruñu am buzz ñu mel ni ñeneen ñu ma bëggul citer seen tur waruñu am buzz ay ñoo xamante ne ay dossier Adji Sarr ñoo leen feeñal ay ñeneen ak ñeneen foofu la ñuy jaaree feeñ sénégalais yi ñoo leen di may buzz ñooñu waruñu am buzz ci dans ce pays là xam nga tamit ñoom man tamit loolu loolu loolu tamit sénégalais ah fokk ñu xoolaat c'est aussi seen seen comportement ay lu lu ndaw nii rek nga may ko nit buzz nii xoolal xoolal jooy Ameth ay Ameth Ameth Ndoye keroog ci plateau bi sénégalais jël ko di ko may buzz même dans la diaspora ñu ngi koy may buzz dinaa non Ameth non loolu jarul buzz loolu da nga koy ignorer waa ji moo xam lu muy jooy da koy bàyyi ci ay jooyam. nee la lu mu doon joy moy mbëkk bu mu mbëkk le motocycliste la à Sébikotane joy yooyu la doon joy parce que xam nañ que tôt ou tard il sera arrêté. waa ji xamoon na loolu. sëñ bindoo yi xamona na tôt ou tard la gendarmerie va l'arrêter parce que mbëkk na nit dawal na sans permis lu mu yor ci këyit matul loolu la doon joy. Hmm. waa ji la doon joy. mais sénégalais yi topp ay jooy Ameth Ndoye di ko may buzz di ko way nii di ko defal nii di ko def nii Ameth Ndoye boobu xëy dem organiser point de presse di tiire ci sénégalais yooyu dinaa non man su ma demee bay wax ñu déglu ma voilà tu vois tu vois dem na ba yëg déjà succès yëg na boppam yëg na boppam ñu doon toog ci point de presse ak ngàngooram moom ak Cheikh Yérim dinaa non man Ameth Ndoye su ma demee bay wax ñu may déglu Cheikh Yérim Seck yow boo demee bay wax ñu lay déglu yow mii kii boo demee bay wax ñu lay déglu mooy yàlla la nakkul sénégalais yi dégg nga déjà ñoom nee na yàlla la nakkul sénégalais yi d'accord yàlla la mais sénégalais yi ñoo war a bàyyi seen loolu di may ay nit buzz après ces personnes là se retournent contre le peuple. gis nañu ko fi ci Barthélemy Dias Barthélemy Dias ñu may ko buzz fal ko maire de ministre ba paré mu taxaw jaakaarlu ak le peuple ne len man may ndanan bi man ndanan la man may ndanan bi hmm, yéen da ngeen pass ñew vous êtes ay tawon ngeen yéen ah, ay tawon ngeen way lool la ko ok Barthélemy Dias mo len wax lool mo ne la ay tawon ngeen ma ci dara kon Barthélemy voilà <laughs> voilà le style sénégalais dalay fal ba paré